borom mu defal ñu kooru jàmm yàlla nañ ci dugg ak bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabil alamin yàlla nangul ñu suñu koor ñu ci jàmm yëpp yàlla na ko yàlla nangu te ful ko vraiment ma leen di nuyu bu baax di leen ziar mon frère monsieur le coordinateur cher membre donc de du bureau et membre rek de Thiès Debout d'une manière globale ma leen di wax ni c'est avec beaucoup de plaisir vraiment laa fi ñëwi ziar si leen nemmeeku si leen di leen euh, sant ci accueil bi mais également peut-être di regretter yéex a ñëw bi ndax fii ay frère laa fi fekk ay jarbaat ay mbokk ay xarit tout à l'heure euh, bi ma koy nuyu je lui dis mon neveu te mooy seen euh, secrétaire administratif loolu la yàlla dogal suñu jarbaat la suñu ànd bu yàgg la suñu mbokk Serigne Njegeen tout à koy nuyu donc di ko ziar di ko yóbbante nuyoo ci sëñ Muniru suñu wéyjur suñu papa ak euh, waa kër maam El Hadj Ndiéguène yëpp donc di wax ni njaboot lañu donc moom xam na ko xam na suñu relation ak sëñ Muniru di leen yóbbante également njaal ak ziara ci sëñ euh, Gol di ko massawu di ko jaale suñu wéyjur woowu di ñaan suñu borom aussi donc yàlla xare ko àjjana te moom it mu yàgg ko saraxal ñu féexee rek dañ fa egg ziar ko ndax moom it suñu wëlëre la. donc di vraiment am mbégte am kontaan mais vraiment regretté wax dëgg yàlla donc ndax fii su ma leen di gis di leen xool di gis ñenn ñi sama bopp lay gis ndax ñoo xam ni yàlla dogal na xame bi am na démb kóllëre gi am na ñenn ñi sax ba ci seen i kilifa wala ci seen i mën naa ni way wayjur wala ci nee naa Basirou lu tax ma naan ko jeune frère magam bi nekk Lyon en France ñoo bokk di ànd ba mu dem France su ma demee France damay dem ba Lyon seeti ko fu ma dégg même day jóge Lyon ñëw Paris yenn saa yi di ma seeti son grand frère sous-préfet aussi suñu xarit suñu wëlëre kon nga xam ni kon kii suñu rakk la ba tax na kon vraiment ñàkk peut-être jaxasoo bi la woon wala yenn saa yi différence d'agenda yi mais lii waroon nañ ko def bu yàgg yàgg yàgg yàgg ndax li leen tax a jóg xam ngeen ni ñun ci lañ mas a nekk kon ñun pour ñu daje pour joxante loxo liggéey lu yomb la war a doon malheureusement peut-être y a une différence d'approche wala d'appréciation peut-être moo tax peut-être ñu egsi fii mais lii moom njob ba muy xam na ko suñu rakk la lu yàgg ba may ne mairie nekk conseil départemental lépp mas ñu réeru ci wax sa xalaat yeeg ci lu dëkk bi di doxee lan lañ ci war a def lépp muy woo grand nii di jël ci rajo di contribuer kon ñun dañoo bokk vision bokk yéene ci cees ndax l'avantage de Thiès waa mooy Thiès lu mu am Thiès a ko gënal dëkk bu mënti dem Thiès a ko gënal pour vous dire simplement kon loolu yàlla daf ko suuxat ci suñu xol yi kon ñun mënuñu bañante suñu biir mënta nekk ndax Thiès waa dafa bëgg moromam dafa bëgg dëkkam beneen bi dañoo bëgg lu baax bëggal suñu dëkk lu baax ba tax na loo am Thiès nga ko yéene loo gis lu baax cees nga koy indi mais également foo amee moment bu ndaw daw nga dem Thiès kon ñun suñu biir peut-être mën na am différente approche mais suñu biir moom kenn mënuñu séparer te lii moom tôt ou da doon am ndax ñu mënta tàqaliko dañuy ànd ba tax na kon man damay sant suñu borom bu baax vraiment di leen encourager surtout ci xalaat bi ngeen am ba euh, am initiative bu dajale mbooloo dajale ay jeunes. yoo xam ne peut-être souvent duñ bokk sax parti politique duñ bokk orientation politique mais bokk même ambition même objectif pour taxaw Thiès jëmale Thiès kanam. loolu je pense c'est un espèce de dépassement ngeen def mën na am loolu surtout ay ndaw nag ndax ay ndaw ànd yombul mais su ngeen mënee ànd rek c'est parce que ku nekk ci bii ci yéen dina am lu mu bàyyi jiital mën naa ni comme ni ngeen wax intérêt général mooy Thiès pour que yéen ñëpp ngeen mën a déggoo joxante loxo ba tax na kon dama leen di féliciter di leen encourager. ngeen maintenir la dynamique la dynamique unitaire mais également en mettant en avant comme ni ngeen ko defee l'intérêt général l'intérêt de Thiès te ci loolu xam leen ni man dinaa nekk seen wet dinaa nekk seen wet parce que dañu bokk ambition dinaa nekk seen wet parce que dañu bokk vision ci Thiès dinaa bokk ambition parce que dañu bokk génération suñ bokkee génération nag mënuñu taqali ko dañuy ànd rek te ànd boobu moom joxante loxo ndax su fekkente ne li ñu bëgg mooy Thiès jëm kanam li ñu bëgg mooy taxawu askan wi li ñu bëgg mooy taxaw problème mu waa Thiès ñun ñi nga xam ne yàlla suturaal nañu ñu am kàttan takk suñ digg am yéene ci dëkk bi dañuy joxante loxo suñ ko defee yàlla defal ñu sutura suñ ko defee rek yàlla defal ñu sutura au delà même des clivages politiques parce que vous savez la politique c'est des moments ay moment la rek ci lay ci ngay sax xam ñenn ñi fi ñu bokk ak ñu bokkul mais day am moment yoo xam ne moment de travail la moment de travail nag su jotee ku nekk da ngay fàtt fa nga far fa nga bokk nga jiital en avant intérêt sani Thiès surtout intérêt cees bi ñu bokk nga xam ne ñun ñëpp ko loo mënti am foo mënti bokk Thiès la ko gën a te soo amee fi ñu koy indi kon ñooñu neex nañu boole neex nañu ànd ci loolu nag xam leen ni man je serai à vos xam leen ni man pare na ànd kook yéen lu ngeen yëkkati boole leen ma ci biir lu ngeen di def ñëw leen wax ma lu ma ndax dama koy def de manière bénévole et naturelle asamaak nag ñoo xam ne organisé wu nañu structuré nañu am nañ vision et am nañ ay projet lu ngeen yëkkati ci projet xam leen dinaa ci topp dinaa ñëw jàppale leen lii li may li tax ma ni waroon nañ ko def avant parce que peut-être mën naa ni perte nañu temps perte nañ énergie mais également erreur d'appréciation tax na peut-être ñenn ñi am yenn position yi te loolu waroon am suñ biir erreur d'appréciation la ndax am na ñoo xam ni peut-être mën nañu ma bañ a jaxasoog man mais am nañu mën nañu xam ñu ma xam walla xam ma njob mii xam na ma bu baax kii suñ jarbaat la peut-être ñeneen ñi lay cadre la après ñu bari ñu ngi Dakar mën nañ bañ a jaxasoo trop mën nañ bañ a xamante yow comme ni ma la sàll suñu rakk nga peut-être sa grand frère ñoo may gën a xam mais ci defar Thiès ci yëkkati Thiès ci taxawu cees kenn warul yëkkati Thiès dara fàtt ci waa réew mi wala fàtt ci njabootu président Idrissa Seck Thiès gi kenn mënut a mënu ko def su dee liggéey rek nga bëgg teg ko ci dëgg. ndax dangeen ngeen di fàttaliku démb xool leen avant 2004 avant 2000 soo doon ñëw fii Ngent wala fii na mu doon demee waa Coonax seede woo leen ñu seedeel leen yéen ñi fi dëkk woo leen waa Coonax ñu seedeel leen suñ doon dem nee na dañuy su nawet jotoon dañuy dañuy wo wogu ñenn ñi teg si kaw seen yére yi pour traverser dex bi fii pour mën a traverser tey ñi gën a bëgg cees soo leen waxee ñun la fii lañ bëgg dëkk dem leen fa ngeen xool kon kenn mënul yëkkati Thiès ne da koy defar fàtte loolu wala da koy defar ñi nga xam ne ñoo xalaat loolu idée boobu ba defar ko nga leen dama leen de teg wala ñi bëgguñu Cees loolu mënut a nekk moo tax ma ne erreur d'appréciation moo am te kon ñun comme ñun ñu woon ci yoon wi te wan nañu wane nañu yoon wi président tracé na ko nañ joxante loxo àndandoo ko mu gën a yemb ndax ko la jiitu ci néeg bi gën na xam peut-être fa kii nekk moo lay wax fi ngay toog loolu la rek mais divergence mënu mënu fi am wala mën naa ni ñàkk yéene mënu fi am ndax ñun ñoo bokk dëkk fi yéen ku ci nekk yéen fa ña nekk Dakar wala ñooy liggéey euh, Louga wala notre frère la sàmba xam na ni Thiès par rapport ak yeneen dëkk yi am na lu fi yàlla def ñun ñëpp am nañ fierté soo nee Thiès nga dëkk am na ñoo xam dañaa ah, mooy nan laa mën a def ba dëkk Thiès nan laa tout ça loolu suñu feexte la yàlla ñu suturaale ñi nga xam ne ñoo am vision boobu ba teg ko nag ñooñu nañ leen renforcer ñu jàppalante ndax mbooloo mooy doole tey seen force yëpp Thiès Debout mooy seen seen doole mooy unité bi ngeen am mooy da ngeen a def bloc àndandoo joxante loxo cette force la dañ koy war a renforcer te renforcer ko nag institution yi ñoo leen di njëkk renforce ndax tey la politique publique li nga xam ne mooy soqali Sénégal président la République moo ko définir moom le chef de l'État mooy définir la vision daan ni fii laa bëgg jëmale Sénégal mais su ko defee pare dafa am ñoo xam ni ñoo ko ciy jàppale ci mettre en œuvre la mise en œuvre de la, des politiques publiques définies par le chef de l'État donc est portée par le gouvernement yàlla su suturaale Idrissa Seck président Idrissa Seck ak li mu def ci politique yëpp tey ci vision ci xalaatam daan ne man damay rejoindre le président Macky Sall ci la mais tànn bi mu def pour ma ànd ak moom liggéey dëkk bi kuy Cees waa rek waroon nga mën a jàpp ci loolu kuy Cees waa mën nga mën a renforcer loolu ndax xam nga ni moom def na avant te ba mu jigee Cees ci gouvernement parce que ca la Cees taxaw kon tey mu nanguwaat ànd ak président de la république kon waa Thiès moom sa waxul ak ñoom war nañ xam ni ñoo ciy ëpp bénéfice ñoo ci ëpp bénéfice ndax dafa na avant loo xam ni mën naa ni ci deux ans mu transformé Thiès yàlla def mu dog ñun ñëpp métti lu ko kuy Thiès waa rek loolu métti woon na yàlla dogal tey ba ñu toog seize ans après président de la république ñu gis li muy liggéey au Sénégal sa vision moom ñëpp gis nañ ko xam nga yéen moom damay wax ñu naan ma waaw léegi danga mel nii da nga dugg APR xaw ma lan man ko dugg ma APR de man président Idriss Seck laa dem fekk président de la République mu def loo xam ni ñu découvrir ko teg ci bët suñ ko waxul duñu kor man dinaa ko wax fu moo ko mënee nag et par loyauté au chef de l'État mais aussi par loyauté à mon leader Idriss Seck suñ ko deful duñu kor kon ñu génn man damay wax waa réew mi soit dañuy dugg kay ànd ak président loyal wax li muy def wax li ñu seede suñ ko mënul ñu génn so loolu mooy looy ah. mais mënoo dugg ci biir pare ngeen di liggéey ba pare ñu naan la noo yemal fii waxal lii wala duggal mais loolu man xaw ma ko man daal su ànci man loolu laa xam looyatu laa xam et aussi loo xam te li may wax dama ko seede dama ko gis te sénégalais yi loolu soxla nañ ñu xam ko kon ci loolu xam li yéen waa Thiès muy waa Thiès dëgg ak waa Thiès xam leen ñun ñu ngi pare tey pour joxanteeg loxo yéen loxo projet bu ngeen yëkkati même ñun projet bu ñu am au niveau national. ànd kook yéen mettre ko en œuvre à Thiès ndax Thiès soxla na loolu aussi depuis combien d'années on a souffert les Thiessois laissés en rade lu nekk xeex nañ ñu ko tey ñu am possibilité gën a accompagner la jeunesse surtout la jeunesse nga xam ni ñoom ñoo gën a souffrir la jeunesse moo gën a ñoom lañ gën a laissé en rade mais tey lu ñu leen mën a jàppale war na war ñu ci hésiter moo tax euh, mon frère Diagne li ma def c'est par devoir c'est vrai j'ai même dit j'ai même dit que j'ai li ma def noonu j'ai tardé à le ndax man dem naa Kaffrine dem naa Tamba dem naa Linguère fu nekk dem na à l'intérieur du pays jàppale nit ñi ay matériel informatique jàppale leen finance ay et tout ça c'est vrai su ma ko defoon Thiès dañ naan Thiès la njëkk lu ñu am rek ñoom yóbbu Thiès mais Thiès aussi ñu leen fàtte ci lañ bokk ba tax na formation bi ma ko defee Sénégal yëpp inscrire pour am bénéficier des mêmes euh, nu mu tudd des mêmes opportunités que les zones de Thiès moo tax man leen woon kon tàmbali la woon tàmbali naa ko def 500 mais il faut ñu continuer même stock bi nga xam ne inscrire woon na à Thiès ñu ko continuer ko donc muy yéen li yéen jaañ ak sa yeneen collègue yoo xam ni ay informaticien lañu wala ay ingénieur wala ay télécom lañ def suñ mënee ñëw aussi ñu boole leen ci formateurs yi ndax lu ñu gën a am formateur comme ni nga ko wax c'est assez lourd ndax former 500 en une semaine rythme bi dafay métti day élevé te il faut nga am les infrastructures donc ak les équipements lépp suñ mënee collaborer je suis ñu def un centre d'incubation à Thiès j'ai un projet de créer un centre d'incubation à Thiès pour une formation permanente des jeunes nga xam ne dañu jël par cohorte chaque mois ñu jël cohorte vingt trente cinquante former leen ñeneen ñëw muy con de manière continue et même j'ai des partenaires qui sont prêts aujourd'hui à m'accompagner pour que loolu nekk une réalité vraiment yooyu yëpp dañ ci mën a liggéey ah jeune frère en fait donc dañ ci mën a liggéey buñ ci collaborer pour vous dire simplement kon opportunité bu am rek xam leen ni man muy sama ministère wala ci gouvernement bi fu ngeen ko ci xalaate xalaat ni mën naa ci jàpp. bu leen hésité ndax li ngeen di def ci laa nekk en permanence nañ leen ci waxtaan joxante ci loxo peut-être ñàkk a gisee ñàkk waxtaan wala ñàkk xamante peut-être moo doon indi yenn yi mais ñun waroon nañ ànd bu yàgg waroon nañ joxante loxo collaborer bu yàgg yàgg yàgg ndax li ngeen di def moom la ci soxla ñun moom lañ bëgg ngeen koy def dañu war ne seen wet accompagner leen mu efficace ndax loolu indi efficacité en fait. man je suis pas à Dakar tout le temps di ñëw di wàcc si Thiès vous la là les équipes sont là on leur donne les moyens on les accompagne ngeen dérouler s'il le faut sax souvent même ñu dimb ñu wax leen solliciter leen ngeen dem a Mbour dem à Tivaouane dem à peut-être chez notre ami Samba donc dem à Louga dem jàppale leen c'est comme ça si on travaille pour le Sénégal on travaille pour notre pays en tout cas man li ma président de la République dénk dinaa ci takk sama ndigg lu ma ci mën dinaa ko def mais soxla naa jàppale soxla naa taxaw soxla naa accompagnement soxla naa équipe te loolu am ngeen ko une équipe mobilisable disposée disponible jeune dynamique patriote bëgg seen dëkk kooku loolu la leen jàppale xam ba tax na côté boobu daal mon cher sachez que je suis là je suis prêt côté boobu daal na ci seen xel dal Ndiob yow mun naa ni doo mag mais am na expérience boo am yow muy muy Thiès di Sénégal amoo fi frontière kilifa yi déggal nañ la yaa ngi dem ci ñoom ñu ngi lay déglu yaa ngi leen di taxaw yow tamit gënal taxaw rakk yi gën leen a conseiller sooy mag aussi nga ne seen mag ci biir pour di leen conseil di leen orienter te man it amoo si man frontière kon bu leen bu leen xaar dara léegi amatul mën naa ni ba problème am ñuy soog ki nañu liggéey collabo de manière permanente beneen bi mooy suñu frère bi ngeen wax mooy Malick Malick gisan xam naa taxawaayam xam naa yé ci Thiès ak ci Sénégal mais également xam naa ni njabootu président de la république mais également moom dafa dafa ma xam te man ma xaw ko kii nu mu tuddati ma xaw ko umpale ba tax na kon moom li mu taxaw Thiès li mu taxaw Sénégal ku taxawu Malick taxaw nga Sénégal taxaw nga Thiès mais par loyauté mais également ndax njabootu président de la république te xam naa moom li ko yéene xam naa aussi li ko liggéeyal démb ak li mu kon pour ëllëg te Thiès daf ko soxla ndax taxawaayam bu rafet bu mu am ci Thiès taxaw ko am ko ci jeunesse bi taxaw ko ci Thiès dëbb hmm. ba tax na kon Malick damay dalal sa xel di la wax ni yow suñu frère nga yàlla incha allahu rabbi problème yëpp dégg naa ko te nga dalal sa xel xam ni mënuñu la fàtte ñu la ignorer mënuñu ko mënuñu ko nu mu tuddati mënuñu fàtte loolu ignorer ko mooy bañ ci tenir compte mënta nekk hmm. waaw nga xam ni muy président de la république comme président Idrissa seen njaboot ñun ci njaboot gi lañ bokk ñun dañu war a joxante loxo lu ñu mën a jàppalante ñu def ko sans même egg ci ñoom suñu biir la war a yem ndax war nañ ko mën entre nous am une solidarité générationnelle mais solidarité suñu biir en tant que membre d'une même famille aujourd'hui dañu war a xam ni dañoo bokk nous sommes liés même je peux même dire nous sommes inséparables nous sommes obligés de collaborer nous som obligés de joxante loxo nous sommes obligés jàppalante nous sommes obligés suturalante nous sommes obligés de travailler ensemble ñun ñëpp ñu jàppalante àndandoo liggéey suñ ko defee yàlla defal ñu jàpp en tout cas man j'ai pas de formalisme mooy mois je damay casser les teg ay formalisme ci euh, ministère yee tout ça su su dee Dakar ministère bi dana d'accord dina fa yem mais su ma ñëwee Thiès c'est le frère kii kii la donc c'est le frère c'est le camarade kii la donc euh, ñu àndandoo ko ci sans formalité taxawu dëkk bi ah, mais taxaw la jàppalante suñu biir de manière sans formalité àndandoo di dem ci dëj yi di dem ci ngénte yi di dem ci takk yi di dem ci yëpp yi nga xam ni ñun ñoo ko bokk loolu mooy ndax loolu lañ xam booy jatara ministre la waaw c'est vrai mais démb on était ensemble ñoo bokkoon lycée max fu mii moo ma jiitu université ñooñu ñu accueillir suñu mag la tey c'est vrai il e dans mon cabinet mais sama grand frère la quelle que soit sama posture il reste un grand même chose comme yow ma la wax il ndax say mag laa doon de dem loolu moo fi nekk te loolu mooy resté yii yëpp xam nga day passé mais lii des c'est les relations fraternelles nga xam ne Thiès moom kenn du fi génn du fonction yi tax nga fi dëkk du fonction tax nga jóge ba tax na kon ëllëg lu mu mën demee rek ñooy resté kon bloc boobu nañ ko sàmm nañ ko liggéey tey jàppalante ci rafetal ko nag waaw te côté boobu man li ma gën a marqué rek mooy seen patriotisme mooy projet patriotique yi ngeen di et citoyen citoyen nu mu tudd yi ngeen di développé donc wax ngeen ma sànq centre social bi xam leen man pare na su dee ay matériel ngeen soxla wax leen ma lu ma ci mënti je le avec plaisir ndax su yàlla defalee ma am am sutura ma ma mën ko donc dama ko war a def pour population yi mais également par loyauté aussi ki la jox possibilité yi président la ne cesse de nous dire yi dem leen seen dëkk yi ubbi leen seen bunt yi yendoo leen ak nit togg leen ngeen añandoo jaxasoo parce que nit ñi lañ soxla te loolu mooy tax soo leen soxla ëllëg am leen mais mënoo ñëw li nga am bàyyi mu resté ci yow rek nga tëj ki sa bunt sa kër doo gi mais suba soo leen soxla ñoom it ñu tëju seen kër li nga yor bokkoo kook ñoom li nga soxla ci ñoom ñu téye ko mais mu amul de secret kon affaire bi c'est simple donc ba tax na kon ñun nag comme yàlla def na macha allah. tàggat nañ ci loolu xam leen ni loolu ñun pare nañ ci fu ngeen su ngeen ñu ci woowee xam leen ni ñun pare nañ ba tax na man dama leen di vraiment féliciter encore di leen sant di leen wax ni li première rencontre la pour man nañ ko def première ndaje ndax contexte yi donc suñu mbokk mi sëñ Ngol li ko dal tax na woon ma ni kii démb ñu waxtaan ñu ni nañ def tey deuxièmement contexte peut-être euh, Ramadan ak 4 avril bi moo jógee peut-être eggsi wu ma peut-être heure bu tax ñuy mën a yaatal beneen bi mooy peut-être. organiser wu pour ñu dem vers une du ma ne assemblée générale une rencontre large élargie boo xam ne dañuy def mobilisation bu mag ñëpp ñu waxtaan mais également mu nekk mobilisation boo xam ne également pour partager ay projet ak ay orientation parce que du rek ndaje nii waxtaan dem ku ne dem non dañuy teg ay orientation lan lañ bëgg lan lañ collaboration bi ci lan lañ koy accès ban lañ koy teg way social bi way alsan ànd bi d'accord mun nañ ko égale mun naa leen may ciment mun na leen may ay kii yëpp mun naa leen ko may yooyu du problème mais su loolu su jeexee loolu léegi mu jeex mais après lan la ñuy entamé ah il faut ñu am axe du man du ay ñëw waxtaan ak yéen gars yi way ñu wax lu neex rek dem non ndax dañu bëgg a liggéey nee nañ Thiès nañ teg projet nañ teg axe yi fan lañ koy teg yan axe lay doon yan orientation mu leer nañ après nag ñuy évaluer xam nga Sénégal nag du évaluer soo demee un an six mois da ngay toog gars yi waaw ñu évaluer en handicap bi réglé nañ ko jeex na dem na beneen ban lañ ban lañ sonk formation jeunes yi d' accord formé nañ ñaat ok insertion la emploi formation ok instrument yi président la République teg mu ngi fi nan lañ leen di encadrer ba jeunes di ko bénéficier ñu dem déposer seen projet yi pôle emploi donc ñu former leen ci numérique donc former leen aviculture former leen est-ce que am nañ temps de poulailler est-ce que am nañ temps de start-up yu ñu créé est-ce que am nañ financement tel six mois trois mois ñu évaluer ñu xool fan lañ toll six mois ñu évaluer waat neuf mois ba année bi jeex un an ñu def bilan dinañ xam ndax yokk nañu am wàññiku nañ suñu yokkuwul nag gars yi ñu tàggatoo te yokk moom moo fi am fii moom kenn du dellu ginnaaw incha allah ànd bi moom avancé rek nan la yàlla dogal ndax ndax nit ñuy wax xol yi set na sell na ndax liggéey moo ñu tax a jóg defar lu baax ñu tax a jóg jàppale askan wee ñu tax a jóg kon mënul nekk lu du avancement da tax na man côté boobu man awuma ci crainte ma tax daal dama leen di en tout cas sant di leen gërëm di leen wax man ma disponibilité tey peut-être ñëw nañu fii mais ëllëg mën na daje feneen wala et sax mais vraiment ci liggéey ak ci loo xam ne day avancer loo le mouvement ak avancer loo Thiès vraiment ba tax na kon dama leen di sant rek di nuyu également borom kër gi.